mbokk internet yi seetaan Guédiawaye info tey ñu ngi waat ak Serigne eh, Omar Dia ñu war a waxtaan nag ci mbiru jinne xam nga jinne dafa nekk loo xam ne Sénégal gépp di ci wax tey nag vraiment mën a Cheikh Omar Dia mu waxtaan bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala sayidina wa nabiyina muhammad salallahu alayhi wa sallam maa ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi salaa salaam leen sant waa yéen waa Guédiawaye info waaw mbiru jinne nag bëgguma sax di ci wax lu bare bari mais comme yéen da ngeen ñëw pour intéresser ma rek dinañ ci waxtaan bu ànd ak dogal yàlla jinne nag lu existé la lu nekk la bëri na nag ñuy wax jinne jinne jinne jinne mais xamuñu lan mooy jinne jinne nag ñii dinañ ko am nit say waajur dinañ am ay jinne wala say maam ñu topp la loolu mën naa mën naa nekk nit dina dox tasanteeg jinne mu topp ko loolu mun naa nekk mais la plupart yooyu jinne yuy loraate lay doon wala yoo xamante ne dañuy indi ay jafe ci biir ci biir ci biir nit ñi mais jinne daal mbir la moo xamante ni ñii ñoo ko mun a am am am bu leer nga xam ne jaamukatu yàlla ngay doon bu wóor wala ngay liggéeykatu barxut xam sam-sam bu baax a baax a baax xam seeni làkkit mun a wax ak ñoom xam seeni làkkit mun di wax ak ñoom wala ngay liggéey batuwuta bu baax wala ngay liggéey wala ngay liggéey batuwaal yii ku koy liggéey ba am ci ijaaba di nga ci am jinne joo xam ne dalay nekkal jinne joo xamante ni di nga koy yabal mu di la defal nga di ko tere mu di la bàyyi nga di ko toogloo mu nga di muy toog nga di ko wax defal lii bàyyi mu di ko def waaye yooyu daal il faut nit ki maîtriser ko bu baax a baax doog di mën a jariñoo mooy jinne mais jinne yooyu su amee pare wala buy ñaan yàlla daf na ko ñaan gi laa bëgg dama waaw xam nga jinne comme nit ñi rek si ñoo xam ne ay jullit lañ ay ay juif lañ ay catholique lañ ay yéefar lañ ak comme nit ñi rek am ñoo xam ne ay wëyu lañ ay bànj lañ yooyu dafa am ci jinne yi mais jinne ji baax nga xamante ni jinne lislaam la moom doo ko defloo loo xam ne sariya da koy dàq parce que da ko parce que jinne loo ko defloo fu nu tëj juróom-ñaar fukki porte sax boo ko fa duggloo moom ci ngelaw lay jaar day dugg foofu waaye jinne ju baax nag dëggantaani njaay moom du dugg ci lu mu war sa dugg parce que jaamu ko te comme yow te ni ngay dee yàlla àtte la noonu lay dee moom it yàlla àtte ko tey xam ne ku la wax <laughs> loolu mën naa nekk parce que xëy na ñooñu ak seen i raw seen xërëm ak seen ay affaire yooyu mën naa nekk mais man daal jinne ji ma xam dangay ngay da koy jëlee ci turu yàlla wala nga liggéey sam-sam batuuta wala nga liggéey badwaal barxuut maanaam barxuut mooy badaxtu bi bismillahi ruuhi bi ihtadat ilal kasir asraari bi baatini intad wa salaytu fii saane ala xayri xalqi yi muhammadin man saaha dalalata wax xalaat maanaam wayi mooy loolu su ko defee nag am na ay tur yoo xamante ni comme tam takk te jay sunu muhammadaalun wala la mu xana jaxadin wala amu tatta xeet boobu nga xamante ni 49 tur la yi nga xamante nii mooy xam suñu ilaa waahidi xeet yooyu nga liggéey ko ba suñu borom tàggatal la jinne ba mu ñëw muy jinne joo xam ne da ngeen ànd ci njub waaw boobu moo am importance te it mboobu it moo jafe bëri na nag ñu wax jinne mais xay na it ñu ànd ak jinne yoo xamante ni leneen yeneen affaire lay doon maanaam dañ leen dugal ci yenn musiba wala ñuy def yeneen sacrifice yu baaxul mais jinne daal baax na ànd ak jinne ju baax it baax na képp ku mun a jaar ci yoon bu am koy di nga di nga am wéttal woo xamante ni wéttal bu baax a baax la si kàttanu yàlla. waaw xam nga par rab jinne jinne la rab moom jinne la rek mu ngi mel na nga naan pël tukulóor naar olof ay kii xeet kii kii la rek mooy rab yeeg jinne yeeg affaire faru rab nag jinne day xool jigéen ci melokaanam mu neex ko mu dugg ko maanaam jinne day xool jigéen ci melokaanam mu neex ko mu dund ko mu dugg ko tàqalikook sagoom bu dee jàng mu tàqalikook njàngam du def boppam bu dee am jëkkër mu tàqalikook jigéen pour mu am jëkkër da koy jafe pour mu am dara da koy jafe parce que yàqal ko rek lay def su ko defee am na góor ñoo xam ne jigéen ji jigéen da leen di dugg di doxaleek ñoom comme noonu mais yooyu yëpp ci kàttanu yàlla day saafarawu waaw day saafara parce que jigéen jinne yi moom am na fooy jaar ak ñoom parce que jinne bala bala nga ko bala bala ngaa mën a jëflanteeg jinne il faut nga dégg làkku jinne fi ñu toll nii nit te ay par exemple bu daana woon ay mbër mbër fa reen fii léegi wala mu daana jinne sàdd ko am na ay xeetu moo jinne yoo xam ne soo la soo waxee da ngay gis automatiquement dafay jóg comme nga ne barxeetin barxeetin karirin karirin tallin dafay yomb waaw loolu day yomb automatiquement day yomb ci kàttanu yàlla non man ku dof sax mun naa laa faj yàlla seere na loolu waxuma ne nag dof yi tux yàmbaa yi wala ay affaire de boo amee épilis dama lay faj bu la jinne dofloo dama lay faj bu la liggéey dofloo dama lay faj dof daal bu dul ay dof yoo xam ne ay dorog ak yooyu mool dofloo moom boo dofee man dama lay faj ci kàttanu yàlla ci lu gaaw sax te du passé 21 jours incha allah rabbi ah, eh, mais Dakar daa bëri jinne gis fi ñu toll nii mën nga yor gara gàllaaj dafa rek gàllaaj Touba wala feneen fu sori gis nga boo rombee jam ñaajo day toj ndax ay jinne am na jinne yu bon yu nekk foofu yoo xamante ni même boo yoroon sa gàllaaj mu baax nga génn moom dañ koy yàq nga dugg moom dañ koy yàq waaw loolu moom c'est sûr moom lu dëggu la moom. Euh, bien mhm. bien sûr bien man gisoo Touba fi ma dëkk. wallaahi bu kër tàkkee fii tey ñetti fan kër tàkk fe ñent fan kër tak fe juroom fan kër tak fe da ngay dajalé yi tàkk yëpp génn delloo sa buntu mu tak mais jinné day def loolu jinné ju say say day def loolu mais dang koy dàq jinné safara la mais amna luko amna bétex bokoy soti bo xamanteni koy du la jégé sax wala mu jege fi nga nek mom loolu mom lu leer nañ la mom jinné man fa ko fekk tay abalé fofu yépp inshallah rabbi mais li si ëpp ki la et puis xam nga na yalla bal xam nga nit ñi dañu gëm ay sacrifice wootal ay jinne woowi rab bay rey deret xam nga sampi affaire wootal ay affaire jàpp zulmaan yi xam-xam yu ñuul yi tasaare ko ci dëkk bi ba tasaare fi jinne yi su ko defee ñoom it buñ paree seen mission dañuy war di yàq rek loola rek nit ñi lu si ëpp nag nit ñi loxo nit ñi jógu ci wax dëgg yàlla tax di sant yàlla di julli si yonente rek sallallahu alayhi wa sallam di xam ne képp koo xam ne feebar jinne dalaa jàpp wala feebar boo xam ne dem nga hôpital ñu xool sa deret xool lépp xool ne ñu feebar bi incha allah rabbi buñ gisante dinaa ko faj ci lu gaaw ci kàttanu yàlla ci kat maa ngi sant maa ngi sent ñëpp di leen gërëm di leen wax ni képp ku bëgg a jokkoo man mën nga maa woo ci 77 543 42 39 wala 76 908 67 63 wala 70 777 16 28 yëpp ku ma ci woo incha allah di ma jot wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.